torne à des moments historiques. moment historique boobu la ñu toll internet yéen i safoo di seetaan les patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar li gën a fës ci xibaar yi nag gannaaw li nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko gannaaw ban ko daanee li nga ni moom moo di six mois avec sursis Ousmane Sonko nag xel yëpp naan dina bokk ñi naan du bokk mais nag ki nga xamante ni moom moo di maître Ngagne Demba Touré nag génn na wax benn sortie bu am importance nee daal leen rek moo mën a tax ki nga xamante ni moo di Ousmane sonk bokk muy la le peuple sénégalais bi nga xamante ne dañoo jël seen yaakaar gi yëpp def ko ci li nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko donc résistance rek moom moo a tax Ousmane Sonko bokk ndax lan bu dul dara li nga xamante ni moom moo di euh, procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi war a mu doonaat beneen guuta donc ñu jàllee si li moo mi nga xamante ne patriotes yi mere nañ ko trop tak lu gën a fës nag mooy lan gannaaw li nga xam ne moo di ko page Facebook am boobu xamante ne patriotes yi ñoom ñoo ko doon abonné dañoo mer ba futu nekkat Barthélemy Dias lan moo tax wax waxam yii nii ki nga ne moom moo di Ousmane Sonko te lépp loo xamante am na ko rek c'est grâce à Ousmane Sonko ba tax nag Babacar Fall mi ngeen moo nekk TFM lu mu waxoon nag si Barthélemy Dias euh, dafa ni gars yi ñu ngi koy commencé di découvrir nànk nànk ba tax nag gars yu bëri ñoo ngi dem di seetaanaat li ngeen moo di vidéo Barthélemy Dias ak euh, Babacar Fall seen xuloo boobu ne Babacar Fall nekkat euh, Barthélemy Dias nekk na koo xam ne nit koo xam ne du wax dëgg nit koo xamante ne vraiment dara dara ay ngor nekku si li nga xamante ne moom moo di moom